yi ñuy jël en visio. soxna Fatima maa ngi lay nuyu. jàppal ne indi na ma bëggee jawaay euh, soxna Fatima ok maa ngoog <laughs> jàppal ne maa ngi rond point sous préfecture euh, bu Pikine Guédiawaye jamono ji fii nii oto yi li waral tamit mënu dem ñoo xam ne tàgg na ci tamit euh, travaux BRT bi nga xam ne ñu ngi def ndax euh, dañ fiy créer benn déviation boo xamante dem tamit yoon bi xam ñi nga xam ne ñoo jóg ci diwaanu jàpp tali bu bees jàpp tamit tali bu mag ngir mën dem fa nga xam ne moom mooy Gunaas sëñ Assane jàpp marché bu bees am na tamit beneen yoon boo xam ne buñ fa jaaree mën nañ gën a mën a sauver foofee jàppal ne moom mooy yoon bi dem tribunal bu Pikine ngir mën a dem euh, Canada jaar noonu mën a jaar fa nga xam ne tamit moo di Limaamu Laay ngir mu gën a mën a gaaw ci ñoom soxna Faty waaye fii nii ci diwaanu Géejawaay liñ fi gën a nemmeekoogum xam nga buñ ko waxaan rek dañ naan mbënd mi sonal na leen waaye jamono ji jàppal ne gunaas moom ak it eh, liggéey yi nga xamante nit eh, def nañ ko fi eh, fii ñoom sonalu leen bu baax a baax ndax tamit oto yi ñi ngi dem naam tamit xat na ndax déviation bi nga xamante ni te créé nañu ko fii te loole yëpp li ko waral moo di travaux BRT bi nga xamante ni door nañ ko fii ci diwaan bile waaw ndox mi moom euh, bari na rawatina itam ci Pikine bi nga xamante ni foofee la ñu jógee Pikine boo seetee tamit côté bi nga xam ne sonal na leen mooy diwaanu Wakhinane jàpp Texaco dem zone boobee nga xamante ni foofu dafa bëri ndox te it euh, napp bi dafa xaw a jege trop loolu moom moo waral euh, ngir bu tawee rek askan boobee daañu xaw a sonn bu baax soxna Fati waaye itam teewul boo duggee diwaanu ginnaaw raay ba léegi itam. ndox jógu fa waaye tunnel bi jamono ji moom moo feesagul euh, bu baax a baax donte sax am na as tuuti ndox yoo xamante nit mu nga ci askan bi ñu ngi gën di dem ñoom itam fattu leen euh, comme euh, na nga xamante ne noonu la leen doon fatte ba du ñu mën a dem xëy ji Euh, trafic bi gis ngeen foofu ca diwaanu waaye jàpp Pikine nee na itam euh, ndox mi bari na fa yàqu-yàqu itam euh, naka noonu waaye dem beeg dikk bi mu ngi ñu ngi dem am na ay déviation waaye gaa yaa ngi doxi seeni soxla ñuy jéggaluwaat encore une fois ñuy masawu ngeen baal ma encore une fois ñi nga xam ne ay sinistré lañu ku ci mel ni ñoom Modou Fall ak ñoom Lamine Samba ñoom ñëpp itam taw bi da leen a laal mu ngi noonu ñu jàll ci leneen muy jàngal bi ak Aïssatou Diop Fall